Euh, docteur Sylla Thiam ñu ngi lay nuyu. maa ngay spécialiste en santé publique tey euh, ñu gis ne lii di cas yi dafa gën a yokk ci euh, Sénégal ñu bëggoon a xam ndax tey Sénégal xel yi mën na dal ndax am nañu matuwaay yu mat sëkk ngir ñu mën a jàmmaarloo ak liñ fi am jamono ji. waaw ci laaj boobu mooy laaj dama xam ni loolu leer na ma ni. teg yi ñu teg ngir mën a sàmmanteeg ñi nga xam ne dañoo am feebar bi tëralin yooyu xam naa ni lu lu lu lu lu jàppandi la ci Sénégal mm-hmm. ndax am nañ ay plan de traitement am nañ personnel bi te xalaat naa ni te dégg naa ni ministre bi ministre de la santé ministère de la santé jënd nañu équipement mm-hmm. te loolu xam naa ni lu nekk la ndaxte feebar bi yàgg na fi léegi te xalaat naa ni liñ ci war a def lépp ci maanaam fu am feebar liñ la war a euh, toppee faj la loolu defe naa war yemb na. Mhm. waaye nag ci loolu yëpp fagaru yëpp ñu jël euh, xam naa ni feebar bu eggee ci benn dayo bi ñu am kattan yi pour mën a dékku malade yëpp donc loolu moo tax fi mu nekk nii dañoo war a góorgóorlu ci euh, fagaru. Mhm. ba nga xam ni bu ñu egg ci dayo ba nga xam ni. Euh, mbir gi day ëpp loxo. Mhm. ndax jumtukaay yi ñuy def am na fu ñu mën a yem ak euh, personnel bi maanaam waaye kër docteur yi tamit ñuy taxawu taxawaay boobu mhm. am na fu ñu mën a yem. donc bu eggee ci benn euh, dayo bi rek dina ëpp loxo. te loolu ci ëpp loxo googu ñu dégg la nga àddu jëm ci oxygène euh, tey ji euh, ndax Sénégal cas grave buñ koy gën di nemmeeku Sénégal dina mën a àttan li ni mel waaye ñu bëggoon a xam tamit Sénégal tey nan lay ravitaillé woo euh, lii di oxygène. waaw Sénégal li ñuy ravitaillé ci oxygène xam naa ni man du man maa ci sama xam-xam bari waaye li ma xam ni mooy am nañ fii ay usines yi mhm. xam ni. ñoom ñooy jaay. E, oxygène yi e, hôpital yi. Mhm. donc hôpital ci ñoom lañuy ñuy jaare pour am oxygène oxygène nag e, garab la am dañ koy dañ koy fajee. Mhm. ndaxte ki nga xam ne yëpp dafa am nit ku bu tolloo ci benn dayuwaay ba nga ne nooyam demeeti noonu wala gën-biram am na ñun docteur yi dañ koy dañ koy jox oxygène. Mhm. te ci Covid bi oxygène. Euh, OMS dafa dégg ba nga xam ni dafa am cas grave cas grave bi nga xam ni ak xam na dayoo ba nga xam ni fa la bi day il faut jox ñu ci oxygène li mhm. ma doon àdduna ak keroog ci oxygène dañ ma laaj ni est-ce que oxygène bi nga xam ni euh, moom lañ wax ni liñ ciy jënd hôpitaux yi ñu ciy jënd bari na mhm. est-ce que du Covid man ko mën na nekk ndaxte oxygène bi ñuy jëf jëfandikoo la ci Covid donc bu dee kaaw Covid bi yokku na maanaam ñi am Covid yokku na ah, mën nañ jàpp ni bu oxygène bi tamit léegi nag euh, ñu bëggoon a xam rek tamit euh, ci wàllu oxygène yooyu la ndax yaatal nañ ko euh, ci mim réew maanaam bu ñu doon wax ci dispositif ki CTE yeeg yooyu ndax Sénégal def na benn mayage ndax gis nañu yenn diwaan yi ni fa Covid bi di ñëwee donte Dakar ak Thiès rek lañ jàpp ne ñooy zone rouge yi. non daw ma ci féete yëpp waane loolu moom loolu mooy mu ngi rek nga ni est-ce que féete yi am nañ ay ay lal mm-hmm. wala am nañ ay médecin parce que loolu ku defar centre de traitement euh, war nga war nga war nga loolu day bokk ci la xam ne danga ci danga ko ci danga ci boole danga ko ci mm-hmm. Mm-hmm. boole donc il faut ñu xam ni euh, loolu jàpp na ni am na ci am na ci ci ci ci féete yi yëpp euh, ndaxte bu ko amulee doo mën a jël en charge cas grave doo leen mën a faj. Mhm. donc loolu loolu looloo ci. 614 décès ba mbas mi duggee ci mim réew ak léegi euh, mm. li waral yokkute bi ndax doon na euh, parce que gisoon nañ benn spécialiste bu alarmé daal dina Sénégal bu tollee fenn dinañ am problème ci wàllu euh, jëm ci matuwaay maanaam prise en charge bi ndax tey mën nañoo méngale euh, cas de yi ni ñu koy gën ni muy gën di yokkee ndax ñàkkum jumtuwaay la wala euh, nu ñu bàyyeekoo la wala tamit euh, variant euh, britannique bi nga xam ne jàpp nañ ne mu ngi fii ci senegal waaw loolu boo nekk ni wax dëgg yàlla tolluwaayu feebar bi ñu ngi jéggi fi dayo mhm. ndaxte boo xoolee ci ñaari mbir nga koy xoole boo xoolee ñi nga xam ne dañ leen di defal euh, boo ci xoolee ci ñoom ñi am feebar bi. Mm-hmm. bu njëkkoon boo jëlee téeméer bu nekk daawul romb ay juróom-ñaar ak fukk du ko wàññi du ko weesu léegi nag dañuy am ba nga xam ni téere positive ba nga xam day ëpp fukk ci téeméer boo jël donc ñu ngi ci ay fukk ñaar fukk ñett fukk juróom donc moom moo lay wan ni dayo bi mu ngi jox beneen bi boo xoolee tamit ñi nga xam ne ñoo ciy faat. bu njëkkoon da ngay toog ñaari fan ñett ñun la kenn gaañoo waaye léegi ci ñun boobu da nga am nit ci ñàkk seen bakkan ci bis bi yenn saa dafay egg sax fan yi sax egg na du fay fukk léegi te boo xoolee tamit ñi nga xam ne ñu ngi nekk réanimation fan yëpp juróom fukk juróom fukk benn juróom fukk ak la mm-hmm. léegi loolu li ci mën a jàngat mooy waaw feebar bi mu ngi yokk bu yokkoo ñi nga xam dañoo am cas grave ah, maanaam ñooñu tamit dafay yokk. Mhm. ñi nga xam ne dañ ciy dañuy dañ ciy faat tamit dañuy risque risque boobu dafay yokk tamit waane li koy sama sama sama sama yaakaar sama xalaat. Mhm. mooy nit ñi dañuy yéex a dem ci bërëbu fajukaay yi. parce que bu dee da toog sa kër ba feebar a dégg eh, te bi muy ñëwee daf la yenn saa say gaaw ni gaawoon lottalee. Mhm. Eh, dafay dafay dafay gaaw léegi bu ko defee nag boo eggee wax dëgg yàlla waa Côte d'Azur luñ jàmbaar jàmbaar duñ ci mën dara il euh, euh, docteur euh, tey jii nga ne nit ñi dañoo war a di teel a fagaru moo gën ñuy bàyyi ba mu ba mu jéggi dayoo ñuy soog a dem ci kër docteur tey est-ce que du pouvoir public yi ñoo war a renverser tendance bi gannaaw sensibilisation ñu jéem a def benn dépistage massif. waaw. dépistage bi nekk euh, waaw ku nekk ci xeebu ku nekk dañu ci am sa sa wàll. Mhm. pàcc boo ci boo ci boo ci boo ci bay. Euh, gis nga pouvoir bi yi ñoom ñoo war a fexe ba ñu am test yi fépp. Mhm. test yi nga xam ne dañ ko war a am mu jote fi mu war a jote nga xam ne yow boo muy ci public di privé muy ci poste de santé bi muy ci centre de bi ñu fexe ci centre de santé bi ak hôpital bi ñu fexe ba waa ji nga xam ni. bu bu feebaree rek wala mu yëg ci boppam ni ah xalaat naa ne am naa wala mu jot ko mu mën a def foofu ñu certifié ko ba mën ko jox traitement parce que am na ay traitement yoo xam ne ñu ngi koy def bu marché mhm. donc loolu mooy dem il faut que muy fexe parce que booy xeexe nit da ngay boo xeexee dara da xam li ngay xeexal lan la te fekk xe xamuñu ko euh, virus bi day gën a dem mhm. parce que fekk xamuñu ñu ko am ba mën leen a téye man leen a faj Euh, dañuy continuer di wàll ñu def donc loolu mooy beneen pàcc ñaareel bi mhm. ñoom war nañu def gën a expliquer nit ñi ko defee ñu gën a expliquer nit ñi gën a wax nit ñi ba nga nit ñi xam ne yéen nii kat feebar bi mhm. amul dara loo ci rus wala amul dara ba nga xam ne bu la jàppee nga dem nga dem ñu xool la bu tey moom la ñu ten la ten la jël en charge mhm. parce que bu ko deful moom moo tax ko am mag bu feebar wala mu am jabet am dara nekk ci këram ba mbir ko ba nga xam ne bu ñu koy yóbbu hôpital rek day fekk c'est trop tard. Mhm. donc lool looloo ci donc am na lu nga xam ne pouvoir public am na nga xam ni euh, population bi am na la nga xam ne nag il faut que def ko. Mm, moom mooy jël stratégie communautaire waxuma ko ci olof bi ci français nee naa ko leeral ci. Mhm. il faut ñu gën a parce que prévention maanaam aar bi fagaru bi il faut que ñëpp doxal dugal ci seen loxo. gis nga bëgg dégg waxaloon nañ sëñ Mountakha wax na euh, xalif Euh, Tiwaawan wax nañ mhm. waaw wax nañ sëñ ma wax nañ li nit ñi gën a faggu mhm. loolu dafa importance loolu dañ ko war a war a fexe tamit ñi nga xam ne ñëpp ñi nga artiste bi waruñu leen bàyyi ginnaaw ñoom war nañ leen boole ci xel sportif ñëpp pour que nit ñi ne mbir mi ñëpp ci war a dugal seen loxo pour mu nekk xeex ba nga xam ne ñëpp a ko bokk pour a daal parce que bu ko bàyyee nii ba mu ba mu egg benn dayoo rek ci dugal loxo googu googule mu am ay acteurs yi nga xam ne ñoo ngi ci xolu euh, bi les processus muy médecin réanimateur anesthésiste ndax tey Sénégal am na leen ba ñu doy euh, ngir ñu mën a def euh, jàmmarloo tamit ak situation bii ñu nekk nii. waaw loolu dama am mënuma mënuñu amuñu Sénégal ci mbirum docteur ak spécialiste yi ci lu doy. Hmm. loolu moom amuñu ci benn spécialité la nga xam ne doy na ak parce que ci ci fi ñu toll euh, am na ay jéego nag yu ñu def waane doy doyul doyul ba léegi. Hmm. parce que surtout réanimation anesthésie réanimateur mooy ci xam ne loolu moom moo gën a moom ci léegi moom moo ci gën a sonn. Hmm. am na su nekk ni sax at yu njëkk yi daaw boo ci gisee balaa ñu si nekk am nañu mais doyul te loolu moom mooy beneen tranche maanaam li ñu ci soxla yëpp. bu feebar bi eggee benn benn benn benn benn niveau bi. Mhm. gis nañ que ko mën a ñu ko mën a euh, dékku parce que ay nit rek lañ dañuy sonn te gis nañ bu ñu nee France ba mu leen daree euh, at mi passé ci mois de mars avril. ay mhm. euh, février mars avril dañoo mujj jëli ay anciens médecins ak ay internes ñëw pour ñu mën a gérer unité de réanimation bi te donc ñoom li ñu am te ñoom ñoo ñu ëppale te ñoom li ñu am dem na benn instant doy. loolu moo tax fu nekk ni muy nguur gi muy ñi nga xam ne dañoo mu kàddu muy askan ñëpp a war a gën a taxaw ci ci ci ci ci ci fagaru bi mm-hmm. maanaam prévention il faut euh, yow euh, ngay spécialiste ci santé publique tey ñuy dégg ci Sénégal euh, ñuy wax grippe aviaire mu am ay mala yi nga xam ne jot nañoo xayma ne faat na leen ca Thiès sax rawatina tey ndax mën nañoo wax ne menace la ci santé publique tamit ndax nee nañ tamit day wàll nit ki. feebar bi dugg demul fu noonu noonu euh, fi mu nekk nii euh, loolu li ñuy wax feebar zoonose maanaam feebar bi nga xam ne day day day day mala dañ koy am nit ñi dañ koy am dañ koy wàllante ci diggante mm-hmm. malade nit waaye loolu waa service vétérinaire fi mu nekk nii ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko solo mm-hmm. ñoom ñooy xool fu feebar bi léegi dañ ciy lëkkaloo nag ak ministère de la donc ñu ngi def am nañ am nañ euh, Euh, dispositif maanaam mën nañ benn tëralwaay bu ñu tëral ngir mën a topp mbir feebar yooyu am surveillance un dispositif de surveillance ba nga xam ne tegal nañ ko ngir mën a xool feebar bi di ko topp ba ba pare xeex ko. Mm-hmm. ba pare xeex ko parce que am nañ jumtukaay xeex ko te yaakaar naa ne loolu mu ngi dox euh, loolu mu ngi dox donc su nekk te loolu moo tax loolu nag loolu li ma loolu moo am important même si ñu xeex Covid bu ñu bàyyi yeneen feebar yi nañ topp. parce que loolu moom mooy piège bi nga xam ne mën nañu indil ay giraawaale. bu ñuy nekk ci commune tamit yeneen risques yi. Mhm. ak yeneen feebar yi nga xam ne mën nañu il faut ñoon sax waaw. donc loolu xalaat na sama xel dal nag ci parce que Sénégal am na benn benn kuréel bu mu teg bu ñuy wax moom lañ maanaam benn wér gu yaram la. Mhm. muy jóge ci mala wala ci wala ci environnement yëpp wér gu yaram la donc ñoom ñoo dañoo boole ci kuréel googu. Mhm. ngir mën a jànkonteel ak. feebar yooyu yëpp. docteur spécialiste en santé publique ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf.